ñuy dalal tey docteur euh, chersec moom euh, moo jiite syndicat bu ñu duppee SDT s jox euh, kaddu tamit fédération des syndicats de la santé ñu gën koo xam ci F2S ngeen bank seen yoxo ci diiru ñetti fan ne du ngeen ko liggéey lu ko waral. waaw li ko waral lenn la rek man man man damay commencer d'abord ma man dama tiit. pour suñu réew. dama tiit pour suñu doom yi ñu war a yar. ñun ba ñuy nekk xale même boo defoon da dañ la la wax boo ñëwee bu la laajee bul fen waxal dëgg gi mhm. boo waxaan dëgg même boo defee li nga def sax bu réyee dina kenn du la dóor baa du la wax dara mhm. mais gis nga bu fekkee ni état moom moo war a joxe le bon exemple te état boobu moom mooy dem bay wax lu dul dëgg wala di ay ruse wala di jël ay ay soi-disant syndicat ñoo xam ne ay retraité lañu di leen utiliser contre des travailleurs je que ñun ñëpp kenn nekkul en sécurité. Mhm. parce que boo waxtaanee euh, état. Mhm. état taxaw mu am passé problème yooyu daan ñu naan état du respecté ay engagement bay bii yoon ñu ne lépp loo xam ne jël nañ ko engagement dañ ko respecté. da ngay da nga leen di jox ay indemnité de un tey jii lañu jox waa police jox ko waa ko ñu sax waa santé mais malgré ça ñun xam nañ ci li ñu nekk ñu nangu jël parce que gis fi kenn ku ñu jox cinquante mille indemnité de logement amul kenn. ci biir fonction publique amul ñooñu dañ ñoo ëpp njàng ëpp ñu jàng ëpp ñu nu responsabilité amul kenn koy taxaw ni la moo nu ëpp responsabilité wala am njàng amul ñun ci ay nit la liggéey mais dafa tax ñu xeeb ñu mais malgré ça yow la nga waxoon sax te ñun bu ñuy recruter dinañ am ay corps yoo xam dañ ci recruter ba toll ci quatre vingt dix mille personnes. Hmm. dugal leen ci biir fonction publique ñun nanguwuñu sax recruter ay nit nanguwuñu former ay nit huit mille huit mille agents lañ non seulement bëriwunu mais nga ni da ngay jox ñooñu indemnité de logement jox leen miette muy cinquante mille cinquante mille yooyu nga leen jox au lieu nga jox sax huit mille personnes yi nga jël ci ñeenti junni yoo xam ne da nga leen da nga euh, dafa am dafa xaaj am ñum jox am ñum joxul. joxu leen xam nga yan la jox. Hmm. mooy ñi nga xam ni comme sama genre yi nga xam ni par exemple dañuy consulter dañuy jël ay malade ñu de jox na man jox nañ ma cinquante mille. léegi ñun joxul. mais ñu ngi joxul mooy les autres personnels ñi nga xam ne tey jii ñu ngi nekk dans un cadre administratif wala cadre technique par exemple tey jii man pour ma liggéey sama liggéey daa mu soxla naa secrétaire bu fay liggéey. Mm-hmm. moom mooy génneel dossier yi secrétaire médical ba. Mm-hmm. joxuñu ko brancardier bi nga xam ne moom mooy moom mooy moom mooy yenul maladie ñëw indil ma ko pour ma mën ko consulter joxuñu ko ki nekk service administratif yi yu yor facturation maladie joxuñu ko pour te pourtant ñun ñëpp ñu ngi na leen ñoom ñëpp. mais lépp la mais waa kër ne dama la boo demee ministère des finances liste ministère agent de la santé yi fa lañ nekk agent bu nekk dañ la affecté ci ministère. tey jii ministère am na ci ay corps de métier yoo xam ni peut-être nekkoon nañu corps mais ci biir ministère ci effectif ministère de la santé lañ leen boole. Mm-hmm. pourquoi joxuñu leen ak fan lañ ko teg te du loolu rek tey jii am na ay ñoo xam ni dañuy diriger ay services ñu amoon indemnité de fonction leen jox. Mm-hmm. soit mu nekk mooy infirmier chef de poste wala mu nekk sage-femme bu nekk maternité rurale mhm. wala mu nekk médecin chef de district wala mu nekk médecin chef de région am na ñoo ne jotuñu seen indemnité de fonction mhm. alors ñoom engagé woon loolu li gën a grave mooy bu ñu waxtaanee dañ ne woon ministère des finances signé nañ accord mais yeneen ministères yi dañ dem waxtaan ak ñoom Mariama Sarr euh, ministre de la fonction publique ni ñu fii ak 15 jours dinañu woo boobu léegi war na ëpp weer woowuñu ministère de la santé woowuñu ministère de la santé sax mën naa comprendre parce que diggante le deux leen waroon na jënte ak ñoom. Mm-hmm. am na waaw mais mais mais am na lu ko mën a justifier parce que dafa am ministre bu bees te kooku buy doog ñëw dinañ ko may temps département au moins mu mën a xoolaat. Mm-hmm. am na leneen loo xam ni xew na ak waawoon aussi ñu jël ay nit tëj leen kaso. Mm-hmm. te ñooñu duñu ay sapeur du duñu ay ñuy liggéey ci électricité du ñuy def ay branchement nan la lakk-lakk mën a am. ñu ne la sapeur pompier dinañ ñu woo leen ñu ne cinq minutes lan def ñëw ñoom bi ñu ñëwee fekk nañ foofu lekk lépp mel ni dóom ça veut dire que gaaw na yow bëgg a koo xam ne infirmière la wala sage femme nga ne ñooñu ah ñoom ñoo waroon sauver xale yi bu tëj leen kaso. Mhm. mais ñu lan la ñu teg. mais tey am na ñu ne ñoom euh, bokkuñu ci grève bi ndax euh, li ni mel euh, dina tax grève bi am doole. waaw mais ka lay wax day fekk balaa nga naan naam ne fa. Hmm. ñett ñoo wax di dañuy grève. ki ci gën tuuti am na juróom-benn fukki at ak juróom-ñett ça veut dire bu ñu léegi ëpp na ëpp na ëpp na ëpp na ëpp na juróom-ñetti at. loo bëgg ay dealer la ñu laa la wax li ma lay wax du caaxaan négociation yëpp ban fa doon nekk ñoo doon nekk lu lu lu nu mu xëpp ci suuf. billaahi wallaahi taalaay li ma lay wax du caaxaan lépp lu nu samp rek pour di intérêt travailleur rek ñu xëpp ci suuf loolu rek fa nekkee woon parce que ay nit ñoo leen ngemboon pour loolu la ñuy nekk ba tey jii. ay saboteur ñoo leen ñoo leen recruter ñuy liggéey loolu te ci loolu la nekk. ci ban intérêt pour lan pour ñu affaiblir. mais mais mais mais c'est des c'est des c'est des dealers professionnels gis ngeen ko ci politique bi gis ngeen ko ci syndicat dama ne la ay dealers professionnels la le nom n'est pas trop fort loolu rek la ñuy liggéey jaay ñu ñun ñun dañuy jaay dañoo yàgg jaay ñooñu ñoo daan ànd ak ñoom ban demee ba xam ne ñii jubuñu dañ leen a bàyyi. jubuñu bëccëg jubuñu guddi li ma lay wax du caaxaan. kon tey grève bi mën nañoo wax am na ampleur. Ah, bañ am ampleur. Hmm. parce que ñun dañ ne woon dañuy grève bu ñu daan grève ñun ñoo ñun ñoo yor urgence yi ñoo yor service de dialyse yi ñoo yor service yi yëpp ban daan def dañ daan took ñun ñu xool ni service yi dafa am sensibilité lu mel ne ay réanimation ñu xëy jël suñu yenn camarades yi leen ne dimbale leen ñu ngeen fexe ngeen liggéey ci structure yooyu parce que suñ ko tejee rek du baax. Hmm. suñu la lañ bokk bu leen neexee grève mhm. mais bu ñu toogee ba ñoom ñu ne léegi ñoom ñoom di dem ci rajo yi ñu leen di jox ñu ñu ñu ñu ñu génne ñu ñuy génne woo journaliste yi ñëw taxaw foofu ñu ne dañuy def point de presse est-ce que loolu information la wala wala wala actualité la ànduñu ci grève nit man bu ma lu sumay ci yëfu nit dama ciy maandu et puis balaa nga naan naam nekk fa nan la wax secrétaire généraux yi jiite ñooñu ñett ña fa nekk ñëpp kenn liggéeyu ci fan la ñuy grévé ak bu ñuy joxee lañ koy dugal nan la wax ñoom ñett ñëpp tudduma seen tur ñoom ñett ñëpp indemnité yu ñu jox nañ ci wax kenn koo xam ne rek dinañ ko gis sa biir bulletin de salaire wala de bu nee moo ne damay grève bokkuma ci grève nan la wax suba fan lay xëy ñooñu ñëpp dix heures lañu yeew seen kër boo demee. bu ñu yeewoo ñu defal seen omelette yu baax. léegi seen saag def ay diil. ne sax. Ah, da ngeen doon def service minimum. waaw boo ñëw di dimbale nit nit ki ne mën naa dimbale sama bopp looy def nañu laaj rek la ñuy def dama lay dimbali nga ne ma mën naa dimbali sama bopp dama lay bàyyi ah man moo ma wóoree ni yaa ngi ci biir ndox mi mënuloo sëy man la dama lay sauver nga ne mënoo ma sauver dama la bàyyi bu nu labee xëy na dinañ dinañ dinañ dinañ wax leneen lu dul loolu bàyyi leen ñu bàyyi leen ñu naq ci ndox bi. kon daal léegi yéen jamono ji déglu ngeen di def gannaaw euh, ñetti fan yi euh, di ngeen tollanti wala da ngeen di déglu xool réaction état. pour xool fi ngeen jëm fi ngeen jëm xam nga xam nga dama lay wax boo nekkee ku responsable. Mhm. doo xaar sax parensaay di nga am sax loo xam ne mën nga koo def grève nga ne gars yi ah nanu muñ parce que je suis en face de responsable xam nga wax naa leen léegi ci ministère de la santé. Mhm. mu toll nii mënu ma ko critiquer mënu ko wax dara a ñëw. Mhm. dama koy jox circonstance atténuante ba bu may gis leneen. Hmm. donc jusqu'à preuve du contraire pour man damay rafet njort ci moom mais ministère des finances duñ ko may dara parce que moom moo jàkkaarloo ñun mu xaatim ñu xaatim. Hmm. mu ne ko respecté respecté wuñ ko duñ leen may dara loolu moom bu ci kenn xalaat duñ leen may dara bu jaree ñu enchaîner sax dinañu enchaîner vendredi dañuy def évaluation ba vendredi ba évaluation bu ñu yëngatuwul ñu di ngeen xam. tey mu mel ni paj mi euh, moom moo feebar ci boppam parce que euh, fu nekk ñu ngi fa yuuxoo tey seen grève bi euh, dégg nañ ko Thiès dégg ko Ziguinchor dégg ko Dakar ak feneen ak feneen ñuy wax ne benn hôpital bu mag sax am na benn partie bu mu jaay santé bi daal yëngu na ndax amoo yow tiitaange justement non non loolu laa lay wax lool laa lay wax gis nga bu may wax man politique ma mais on est obligé parfois de parler des politiciens gis nga ce pays là ni koy gérer c'est-à-dire xoolal secteur yëpp yëpp yëpp yëpp yi nga xam ne tey jii ñu bi ñu nekk administration dafa di secteur yoo xam ne kenn daaw ko dégg ci yenn yi mm-hmm. mais lépp lañu parasité yàqu état mënul taxaw ne man am naa ay milliards yu ma dugal ci biir santé mm-hmm. naan damay construire hôpital Touba bu bees tàq te te mat la bu ma nga fa am ay problème mm-hmm. nga ne damay construire Kaffrine construire Kaffrine construire Sédhiou trouver rapidement ay financement dem ba village bi benn am na benn politicien boo xam ni comme ni ñu ko tabax fa benn hôpital ci benn village. Hmm. alors que alors que alors que hôpital Ouro Sogui sax doxul. comprendre. Hmm. ça veut dire que leen neex la ñuy def mais mais dëkk bi lan moo fi am ñu ñëw ñëw tey jii nga ne hôpital dante nga ne xam mooy hôpital bi gën a kawe ci Sénégal amu benn hôpital bi niveau bu gën a kawe fii ci Sénégal. a hmm. moins de deux kilomètres de l'hôpital mu nekk building administratif nga ne investir nga fa presque plus de trente milliards de francs. te mu tàkk. nga ne hôpital bi dama ko bëgg a defar nga ne pour ma defar ko il faut que ma jaay benn partie pour mën cee tabax mm-hmm. mais loolu kan la ñuy nax ça veut dire que dafa am ay courtier ay ñoo xam ne ñooy liggéey ci loolu mm-hmm. état Sénégal buy am budget cinq milliards am na problème pour réfectionner un hôpital waxuma la sax tabax hôpital benn mais réfectionner nga jàpp ne ñooy courtier yi <laughs> mais mais mais dëkk bi ay courtier ñoo fi nekk am na nit bu taxaw fii benn politicien mm-hmm. ne moom ba mm-hmm. këram di fa denc ay milliards ba nga koy sàcc. Mm-hmm. est-ce que dañ ko woo. Mm-hmm. taxaw ne fii waxu ne moom courtier la loolu mooy liggéeyam. laaj nañ ko fan nga jëlee say milliards mu ne moom day faciliter nit ay marché qu'est-ce que nous dit que ni du loolu parce que man gisuma lenn lu tax ñu war a jaay hôpital la Dantec pour tabax une partie. président Senghor ba muy ba muy defar hôpital ba ñuy defar hôpital Fann fii. hôpital Fann ci ay ay ay ay kilomètres kilomètres la ko la parce que dafa séntu woon ay génération génération yu ñëw pour que demee bu santé bi développé ñu mën fa tabax ay services yu bees bu amul faan bu mel woon noonu doo fa gis service chirurgie cardiaque bu bees ba fa nekk doo fa gis service ORL bu bees doo fa gis service bi nga xam ni euh, professeur Seydi lijjanti na ko fa muy infectieuse boobu ñu boobu ñu def. ak ak ak ak programme sida boobu ñu def bu amuloon espace mënuñu ko def ci la ñu def yaataaye boobu moo tax ñu mën a may ba tabax Albert Royer biir hôpital Fann. d'accord. mais fii ak dix ans ou quinze ans est-ce que l'hôpital Dantec lu soxlawaat ñu tabax fa ay ay ay service d'extension. Mm-hmm. waaw mais pourquoi ñu koy jaay mais bu ñu koy jaay ou yi mais ñu ne dañ koy jaay ay ñeneen ay ay turc ay ay même sénégalais yi bu ñu participé woon trente milliards day dara trente milliards bërki démb def nañ ci emprunt obligataire ci ci UEMOA am ci cinquante sept milliards. Mm-hmm. tey jii waxal sénégalais yi ñu financé fii ngay toog léegi benn jour gars yi ne sénégalais dina am benn sénégalais bu sonn en moins de vingt quatre heures gars yi def xoolal xoolal sama mbokk sama mbokk murid yi Touba da toog ba ci yàgg sëñ bi ne soxla naa tant de milliards gars yi en un clé ñu génn ko. Mm-hmm. nan dem ni waa Touba nañ ko financé wala waa Tivaouane wala ñeneen léegi génne gars yi génne xaalis bi. Mm-hmm. dafa am ñeneen ñu nekk ci ginnaaw loolu mooy wax ji du leneen. et c'est pour ce a